cërub Cheikh Abdou Khadir moo waral tey sëñ Fallou jiite nga yor baat bi sëñ Abdou Khadir moo baaxi bopp waaye Cheikh Abdou Khadir moo ragal yàlla Cheikh Abdou Khadir moo maanu Cheikh Abdou Khadir bi mu fi nekk yilimaan la bi mu fi jógee yilimaan la ba mi ngi ci penku jumaa ji sa baay yent yi kenn fekk ko ca lam yu musta juum xol bu amul kiñaan biir musta lekk di baa musta mooy yàlla loolu Cheikh Abdou Khadir rek sëñ bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yu tedd yi fi teew yëpp bokki taalibe murid yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul ki nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Touba tey ci kaw suuf di as cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ubbil rek as cheikh Mouhamadou Fadel mi nga xam ne mooy boroom jataay bi di ko jëmmal di kilifteef gi waaye ci turu sëriñ bi danaa ci dellusiwaat. ak ci moom mii sax wala taktumu shahaadata wa man yaktumha fa innahu aathimun xalbu kon liñ xam ci war dañ ko seere ñi ngi nuyu ki nga xam ne ci mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi moo fi mag ci jataay bi di sëriñ Xaasim Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada buñ ko nuyoo nuyu nañ mboolem rakkam yu te yi mu àndal yëpp di sëriñ Moussa moom itam di suñ lépp ak sëriñ Issa moom itam di suñ lépp buñ leen nuyoo itam nuyu seen doom yi nga xam ne fi lañ leen fekk te buñ ci tuddee sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ak sëriñ Abou rakkam ji àndal ak sëriñ Modou Aysam Cheikh Sidi Moukhtar ak sëriñ Abdou Khadre rakkam ak sëriñ Abdou Fatam mu Cheikh Mahamadou Bachir mu sëriñ Fallou ak mboolem ñi fi teew ñëpp ndax bu ñu xasee tudd sëriñ Xaasim rek ñëpp tàbbi nañ ci biir ndax yoonu murit noonu lay doxe di siyaare itam di nuyu ki nga xam ne moo fi buñ ko tuddee ci këri diine yi mu mën a yóbbaale mboolem. kilifay diine yi ci Sénégal yëpp muy alxaaji Abdoulaye Thiaw Laye muy koo xam ne taxawaayam dafa yàgg ngir màggalu Tuubaa gii ca bu yàgg ci jamono Cheikh Abdoul Ahad saa suñ ko masaan di def xam ngeen ci kilifay diine yi bokk na ca ñi ci gën a ràññiku at mu jot itam dana teew ànd ak délégation bu mag bu ñëwee seere seereem su rëy soosu nga xam ne ñëpp koy fàttaliku lam waxoon ne yoonu murit dafa mel ne liir bu dóoru juddu at mu jot nga nga dogalaat ku meen bubu kon moom itam jëmm la joo xam ne képp ku baax ci senegal rek ameen nga ko njukkal ndax ba mu koy man di ko tal mës a yónnee fenn rawatina nag Touba diggam ak tuuba diggante bu rafet la boo xam ne boo jamono ji melagul nii kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu yàgg lool mu yàgg jiite ak njabootam ñoo itam yàgg topp ci ginnaawam di nuyu mboolem kilifa diine yi fi teew yëpp bi may ñëw nag sëriñ bi dama booleeg jëwriñam ci ndakaaru muy sëriñ Mbàkke yu fay ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha li ma wax mooy liggéey bii kat bañ koy tàmbali ci moom lañ ñëwoon. mu nekk jëwriñ ja ànd kook ñoom waaye nag mu nett li ma ci wax ju xóot ci diggam ak Cheikh Abdoul loo xam ne moo tax mu am ngàntul xëy bàyyi lépp bi mu koy bàyyi nag mu tànn ki ku ci gën a doy muy Cheikh Mouhamadou Fadil mii nga xam ne li ko Cheikh Sidi Moukhtar seelee doon doy na sëkk muy delloo seel naa leen Cheikh Abdou Khadir Mbacké te ñun ñi bokk moom Serigne Touba de ndax yàlla def na li muy gàtt gàtt fekk nañ ko kër Serigne bu kon moo ñu mag fuuf waaye fekk nañ ko ci kër Serigne Souhaïbou waaye bañ koo xamee ba nage xamuñ dara lu yokk ci bi jaaw bi la Cheikh Mouhamadou Fadi seere rek danaa ci dellusiwaat ndax boo xasee dugg ci waxtaanu sëriñ bi rek dalay tënk kon ñi ngi nuyu kilifay àdduna yi fi teew kilifay àdduna yi nag li yàlla def suñ borom dogal ko mooy ki ne ci bopp bi mooy président de la république Macky Sall ci dogalu suñ borom moom la suñ borom teg ci réew mi ci loxoom kon ñu di ko sant bu baax di ko gërëm ni ma ko waxee woon barki démb rek la sëriñ Abdul Ahad Mbacke waxoon du ma gërëm ku ma defalu dara kon nag lépp lu ñu seere ci moom ci cant ci diggam ak yoon wi. mooy jëf yi nga xam ne sëriñ bi da koy def te li ci ëpp muy jaar ci man ma di ko xam loola bu ma ko seere wut xaw ma kenn ku koy seere kon ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi ko fi teewal tàmbalee ci ministre Abdoulaye Abdoulaye Diouf saar dana am tuuti lu ma ci seere di nuyu itam ministre Mame Thierno Dieng mi nga xam ne doomi Cheikh Sidi Moustapha seen diggante sori woon lool ñëpp xam ko. ma xam fi ko sëriñ bi tegoon ak Abdou Ndeena sàll mi nga xam ne maamam diggam ak sëriñ Touba ñëpp xam nañ ko ba ci Cheikh Mbacke Sakho mi nga xam ne yàlla def na 2001 la njëkk ànd ak président tey indi ko ci man yàgg na kon loolu tey kon suñ diggante ci moom la tàmbale di nuyu mboolem yeneen nit àdduna yi fi teew te bu may tuddee Pape Diop. ndax moom suñ diggante dafa yàgg nii ko Ablaye bay waxee léegi ndax fanaan na sama kër ba tàyyi may itam liñ seq ndax njabootam gépp man la leen jébbal te loolu du tey loolu ëpp na fukki at ak juróom kon diggante bi du tey du démb la ab Abdoulaye Wade mi ñuy wax sax yàlla def na moom a jëkk nuweel ak moom kon suñ diggante sori na bu baax kon Abdoulaye Diouf Sarr li ñuy seere ci moom ak ministère mbay Ndiaye maa ngi fàtte loo tax lim yoom dama koy daw saa soo ci xasee dugg rek faaw nga fàtte ndax euh, wala xad ahidna ila adam min qablu fa nasiya doomu adama suñ borom doo ko binde fàtte ndax moo tax ñuy wax ne sax nit dañ ko tuddee insaan ngir bari fàtteem moo tax lim bi sax matatu ko ndax boo xasee tuddu cim réew président de la république jëru ngay tuddaat kenn waaye Ablaye Diouf saar moom itam damay seere ci moom bu yàggut am na génn kilifa gu mag ci yoon wi kilifa gu mag la duma tudd turam wéere dina bisu dimanche ñu jaaxle ci principal xat kenn mënu faa dugg may xalaat ku ma war a woo ñu jaaxle ci ñëw ci man ma yëkkati sama téléphone woo ko mu def ci yitte ba jël mbir ma ci sama loxo ba def ca loxo def na kawe na sama jort kon loolu tam faw ñu seere ko màggalu Tuubaa ak daaw itam hôpital Matlaboul Fawzayni ku ne xam na ne bari woon day jafe-jafe waaye ba mu dafa waxoon ne fépp fu moo ko fekkoon danaa ko yokk noonu itam defe na ko noonu ba ci biir loolu danaa ci nettali loo xam ne ñu bari xamuñ ko mooy projet hôpital Touba bii tey président def ca cosaan la 2012 bi nga xamee ne moom mi ngi door agsi ci réew mi dafa fekk ma hôpital Matlaboul Fawzayni nekk ci ay xat-xat yu metti ak Cheikh Sidi Mokhtar boole ma ak ñoom ma di ko lijjanti ba mujj sax muy bëgg a fàbbi màggal gi ci man ndax xat-xat yu metti ndax li ko indi mooy budget bi ñu leen joxoon mënu leen la lijjanti ba mujj bor yi sonal leen ma woo président wax ko ko leeral ko ko ne ko ñoom kat xat-xat yi ñu am neenañ faw hôpital yi ci senegal te bi taalibe Sëriñ Tuubaa ko liñ leen di jox mooy bi gën a néew ci hôpital yi kon loolu jaaduwut ca la ma waxee ne man danaa ko saafara ne ma sax Tuubaa dëkk bi ni mu rëyee waxuma defaraat hôpital bi waaye waris na fa tabaxaat benn hôpital ba yàlla def na hôpitalu ñeent fukki milliard bi yaakaar naa liggéey ba léegi te mu tàmbule kon loolu itam faaw ñu seere ko sant ko gërëm ko ndax suñ kilifa yu baax ya tàmbalee ko ci ak cheikh Mouhamadou Moustapha ak cheikh Mouhamadou Fadil ak cheikh Abdoul Ahad ak cheikh Abdoul Khadir ak cheikh Salihou Mbacké ba ci ak cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci ak cheikh Sidi Moukhtar ba ci cheikh Mouhamadou Mountakha démb rek wax na ma ne man de képp ku ma jëfal lu baax danaa ko sant ndax suñu borom ci waxum dafa bëgg ko sant kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom dimbale ko kàttaral ko ba liggéey mu àggale ko na kaw njortam ci barke suñu Tuubaa li ma doon seere ci Cheikh Mamadou Fadil léegi sëriñ Touba dafa nekk ci njaareem maam Cheikh Ibra Fall mu boole kook Cheikh Mamadou Fadil aw ñam fekk bi mu leen di bëgg a boole ñam Cheikh Mamadou Fadil dafa wax seex Ibra ne ko dama lay laaj ba xam. Serigne tubaab mii nga xam ci njaareem ak ma nga xamoon ci Mbàkke Kajoor lu leen wutale Cheikh Ibrahima ne ko ndax jàng ma Masaalikul Jinaan mu ne ko waaw mu ne ko jàng ndax ju Qadaayil Xaaj mu ne ko waaw mu ne ko jàng mu ne Wiru Sudur mu ne ko waaw Cheikh Modou Fadi ko bëgguma nga wax ma waxi daanu ko dama bëgg nga tontu ma Cheikh Ibrahima ne teg ba mu yàgg mu ne ko yaari yëf de gis naa ne sopp ko ne ci moom mooy kawar gu weex gi ak muuraayu bopp bi xaw ma leen lu soppi ko ci moom fekk Serigne Touba boole aw ñam daal daal dugg ci biir kees gi bi mu duggee dellu si sëriñ bi da daa tontu am xel mu génnaat di wax ak Cheikh Maodo Fall dina ko Ibra Fall mii ci njaarim de ak ma woon ca Mbàkke dara wóotalewu leen fekkoon Serigne bi bàyyeegut jëfandikoo gura. mu jël yàbbee di jox ko Cheikh Ibrahima na ko am yow muy sa wàll ndax bi mu bi mu ko booleeg Cheikh Modou Fadi ñam ba maam Cheikh Ibrahima dafa nanguut a ne ko xaj du bokk borom bi ko ko sëriñ bi joxee nag mu jël ñam bi bëgg ko ba Cheikh Modou Fadi bëgg xëccee moom Cheikh Ibrahima gaaw ko gaaw ko jël kon ñoom noonu lañu àndante woon Cheikh Modou Fadi mii itam maa ngi seere ci kanamu àdduna ñëpp di ma xam ak mboolem ñi bokk bokkal Sëriñ Tuubaa mooy nii ñu ko xamee nii lañ ko xawe woon kon ñu ngi koy ñaaral suñu borom yàlla na ko fi yàggal lool mu yàgga taxawu lislaam ji ndax taxawaayam bii kat kenn mënu ko ci wutu kon yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu itam euh, Serigne Makhtar Diouf ndax maag Serigne Bakki Faye la Serigne bi yebal wax na nañ ko teewal ci moom mii ndax day doomam di taalibeem di jëwriñam lu jëkk lii bis bi itam yàlla def moo ko daan taxawal boppam di jëwriñ ja ba tax mu am ci ngantul baatin ba mënatu ñëw mu yebal Cheikh Mamadou Fadel waaye neen mi ngi gërëm sëriñ Maxtaar Diouf di ko sant bu baax di ko gërëm ndax sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne ndax ker ba ko Cheikh Mahoudou Mountakha di tànn boo Cheikh Sidi Moustapha fi ne te lii ab liggéeyam ku fi nekkal sëriñ Tuubaa la mu wax ne mu dem ba ca Cheikh Sidi Moustapha laaj ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal Cheikh Mouhamadou taxa door koo samp bareen jii tey muy Serigne kon lam yaakaaroon ci moom ba séntu ko ba tax mu jox ko cër bii matal na ko kon yàlla na ko yàlla yàgg def te moom mii kat ba muy feeñal ak taalibeem ñi ko nangoo feeñal bariwut ndax mu'minu na ali firawna yaktumu imaanahu mayusta wax ne ca la bokk ndax ci jamono yam koy def booba yoonu murit yaatoo yaatoogul nii am na ci nit ñi ñoo xam ne sax seen taalibe dañ ko daan nëbbu waaye moom mos a yokk-yokki mos a dellu ginnaaw kon loolu day wane ne li mu doon wane lépp dëgg la ci kon mbook mboolem ñi mu àndal kuréel bi bàyyiwuma kenn muy sëñ góor a xuma ak soxna sooda xuma ak mboole ñu ñu ko àndal ñëpp bàyyiwuma kenn sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax bis bii kat day bis boo xam ne li ci jiitu ci ñu war koo fàttaliku mooy dellu ci yàlla suñu borom. te xam ne Serigne Touba ku bañoon kuy bokkaale la mosu ko nangu ndax nekk na ca ci yéen jolof di liggéeylu génne ci biir keek dem ca jàkk ji dellusiwaat dëppaat seen nit ñi di jul di di liggéey nangu ñu julli am benn naar bu ko wax ne ko seex ñeelu leen tey yi maa salakakum fii saqara qaalu lam naku min al musallin walam naku nut'imu miskin wa na naxuudu ma al xaaidin wa kunna nukazibu bi yawmi diin xatta ataana al yaqin wan kono ko daal ñii li tax julli juuñ waa sawar biñ leen laaje an la tax julli jiw dañ ko da tontu ne dañ ko ñoom dañoo tontu ne leen dañoo bokkoo ci ñi daw julli Sëriñ Tuubaa nag waaye nag foo fawaylun lil musallin am na fenn aaya bu alxuraan suñu borom di wax ne fawaylun lil musallin moo tax aaya yi lu mat di xool la ndax bu fekkente ne da nga koy fiiree na la neexee rek ndax léeg-léeg ñee taral ci wàllu aqida da ngay dégg ñu wax ne wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun bokkoo moomale ñi bokk ci tarixa yi ak akafaru baada islaamihim di ko moomale ñu bokk ci tarixe yi te loolu ab yéefaru ko tax a jóg ndax wa kunnaa nukazzibu bi yawmi diin xatta atan yaqiin ab jullit moom lu mu yées yées weddu bis penc kon Serigne Touba wax leen ne leen mboolem ñi nga xam ne dañ doon julli dañoo nekkoon ci biir liggéey ba mboolem luñ liggéeyoon ci biir julli gi nañ ko dindi te dem julli ji ba ñëw door dem àggaliwaat julli gi kon Serigne Touba noonu la fonke woon waxtu julli loolu war a ci histoire yi ngeen di dégg yëpp muy julli gëm julli woon ca ñaar raakaay ndare te ñu ko fàttali ko fan yi weesuwu ci woon dara jubluwu ci woon lu weesu wane ak moom yàlla ak loo xam ne war noo ko def waxtoo jot mu def ko julli géej gi itam dafa màndarga yu wóor ndax tubaab yi bañ koy atte ca Ndar nañ defoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom lépp dafa ko dafa nuroog moom dañoo wax ne wa is yamkuru bika lasina kafaru lu yuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin bañ koy fexel ca conseil privé ba nga xam ne ñëpp dégg nañ ko jëru dellusiwaat dañoo wax ne ñett yëf rek lañ ko ma def benn ñu def ko résidence surveillée te mooy ci biir ndar ñu ne kon boobaa fenn fu ne nit ñi danañ fàq ci àdduna ñëw di ko fekk si te kon musiba doon aw yaqtuloo ko ñu ne kon ñu faat bakkanam ñu ne buñ ko faatee te dégguñ ko fenn itam mën nañoo andi fitna joo xam duñ xam fu yem ñu ne kon li ci sës mooy nañ ko génn réew mi exilé ko gouverneur ba nga xam ne nag. yàlla def na moo nekkoon ca gouverneur Louga nekkoon ku bañ sëriñ bi xalaat boobe ci moom lu jugoon ñu daal koy exiler génne ko réew mi loo ko ci suñu borom njëkk a faye nag mooy sëriñ bi dafa dox diir bu gàtt ca dëkk yi nga ko yóbbu ca euh, Gabon mu fekk ko fa bi mu agsee fekk na gouverneur ba mu fekkoon tàng jër ci sëriñ bi di ko fitnaal di ko sonal lépp sëriñ bi di ko dékku di ko muñ ba gouverneur ba agsee nag mu wax leen ne leen mu wax ko ne ko bi mu agsee sax kersa da ko jàpp muy nëbbutu sëriñ bi mu ne gouverneur bi maa ngi lay wattandikuloo ngay jëf wala nga wax lépp jëpp jëf joo xam ne dana ko indil fitna ndax man kat na nga xam ne lépp lu ma daal tooñ ko moom ko teg te fekk na Serigne Touba mos a soxla seen lenn dërëm yooyu ñu ko daa fay sax dafa bindoo ne katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidil ma'i wa tini nee fa ba jóge fa mës lekk seenu lekk mës jël seenu dërëm mës jël seen alal mbooleem lim daa jëfandikoo weesu cere juñ ko daa jële fii Sénégal di ko yóbbu te daanaka du ci jëfandikoo léeg bu demee ba amut am ñax sax la daa jëfandikoo moo tax sëriñ bay jaxate wax ko ne ko daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo lu dul ñax foofale Bàmba kon sëriñ tukki bi lépp ay nattu la lii ñuy màggal tey di ko fàttaliku it muy julli géej gi histoire bu wér la ndax dañ ko indi ndakaaru mu am fi ñaari guddi ñaari guddi yu tar yoo xam ne jëru del siwaat ndax ñëpp xam nañ ko ndax mboolem natt yu ko tëj yëpp moom rek nga dégg Sëriñ Tuubaa di wax ne iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabba an il mahi kon nag jataay bii tey bokkoon ci la ko suñ boroom fayee jataay ñaari guddi Ndakaar yooyu bi mu fi bàyyi ko itam nago yi ñëpp dégg nañ ko ci histoire sëriñ bi ko bindal boppam biñ ko booleek nag wa booba tubaab bi dañoo woote yaakaar ne nag wi day faat sëriñ bi ñu bëgg wax ne képp ku ma bëgg a gis nit koy faatu na ñëw ñëpp ñëw di seetaan si ba mu ba jub sëriñ bi rek wa taaratil baqara ka anna laha ajniha loolu mbirum sëriñ Tuubaa nee na nag wa koy nettali ca gànnaar nee nag wa de ba fi ne ak gut nettaliwaat na ko ci yéen wax ne ba fi ne ak gut nettali na ko nettali na ko nettali na ko ci ci yéen wax na nagoo ba fii mu ne akkagul nettaliwaat na ko ci njaaram wax na nagoo ba fi mu ne akkagul kon loolu lu ko suñ boroom jagle la lii di julli géej gi itam histoire bu wér la sëriñ Massamba Faati di rakk ci sëriñ Massamba sëriñ Mbàkke Buso ñëpp xam nañ ko sëriñ Touba. sëriñ Touba bis sëriñ Massamba Faté sëriñ Modou Xari Faaña ñëpp fekk nañ ko bi mu faatoo yàggut ci xalifa ak sëriñ Saliou la faatu ci làmmiñam laa nangoo ñëpp dégg nañ ko ci moom wala ñu bari bokk mu ne sëriñ Touba bis da ko woow te jóg moom takkusaan ba guddi wala suba ba guddi ne ko damay sant yàlla ci ndax defar nit ba defar doomam sëriñ Touba ci boppam nag moo ko nett li julli géej gi nett li koy nam ko defee ci biir archives yi itam da ngeen ca fekk lu yéeme ndax tubaab bi dañoo wax ne bi sëriñ bi demee ci ndax mas ko ko laaj mu ne damaa meloon na kuy xaru xawma woon nag lu ma ca fekk waaye nag ndigalu suñ borom dara jër lu ma ci àddina faat ko moo taxaw mu dem taxaw sànni derbe suñ borom téyel ko ko tubaab yi bind nañ seen archive wax ne dañoo wax sëriñ bi ne ko lii nga def de xame nañ ci ne bu la neexoon doo dellusiwaat xamee nañ ci ne ko amul fit nga xamee nañ ci ne ko gore xamee nañ ci ne jàmbaar dëgg nga kon nag sëriñ Touba buñ doon wax waxtaanee mbiram fii ba guddi du jeex waaye danaa ci nettali lenn lu gàtt ci li ko suñ borom faye ñaar benn bi mooy dafa nekk ci ci yéen jolof ginnaaw bu mu jugee ci al ghaybatul bahriya commandant cercle bu Louga génne benn arrêté mu ngi nekk le 7 mars 1909 wax sëriñ bi ne ko mayetuñ la ci kees yi ne ci si kër nga dëkke ci lopp ñaar fukki néeg ñi ñëw di la visiter si itam di la siyaara si mayetuñ la mu ëpp juróom fukki nit daara yi yi ngay ubbi itam mayetuñ la nga ubbi ci jenn daara te amatoo autorisation nga xool tey la ko ci suñu borom faye màggalu Tuubaa gi daaw xayma ne ko ci juróomi millions nit muy genn fay néeg yi itam ñaata kër Sëriñ Tuubaa moo am ci àdduna kenn xamul nu mu toll daara yi itam daara yi nekk Tuubaa di daara alxuraan lu bokk te école yi mën na junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn daaw ci xayma te bokk te école yi kon nga gis fay suñu borom kenn xamul fu mu yem kenn xamul fu muy jeexee kon nag ci jeexal ñu tënkee ko rek ci. la xewoon ca maayom ba ndax dafa lëkkaloo xew-xew bii ndax loolu itam Serigne Touba dafa wax ne yassara lil muna la daal libar wali man qaada li maa xaaba an kulli wali lii qaada ahli badrin usuda man sax-saxul waashiya wal xasuuda dañoo xëy bis waa quartier yépp xëy di tàggatu nañ daa def fekk ngir bëgg sonal sëñ bi bindee ba ne tël rek waa ahlu badrin feeñ